mais mais projet yi Miss Sénégal mooy tax moo la koy jox wala parce que pour man njàng mi. Mhm. dañ ko bu ma la doon en tant que mag sa mag. Mhm. ah tonton sax lay wax. tonton waaw war naa la mun a conseiller. pour man njàng bi dafa war a nekk rek loo xam ne da ko da war a continuer. pourquoi am mhm. wax ko. parce que quand même ci oto bi lay xewee. gis naa aussi ñu bëri ne euh, ni ngay exprimer woo c'est-à-dire moom toj na dëkk. <laughs> gars yi ñu ne yi ñu ne bi fan la jógee xam nga dama lay wax rek lu nit yi di wax. Uh-huh. parce que comme ci lay xewee. Mm-hmm. gars yi ne way ah ngi nii waaye je suis très émuse nan la ko mën a waxee effectivement quand même euh, vingt et un lan lan ngay wax ci loolu boo defee boo ju boo. lan nga lan nga ci wax lan nga ci jàng xam nga faute kenn mënu ko bañ parce que français nàmpuñu ko. Mm-hmm. dañu judd di ko jàng ak euh, ni ma doon jooyee noonu ñu mhm. profité ñëw journaliste yi ñëpp tiimale ma micro ma juum bi may wax sax bàyyiwuma ci xel mhm. après laa gis vidéo yettu ñuy euh, de wax yi kenn xamul daal mooy loolu mooy loolu mhm. mais mais dafa mel ni yow da ko jëlee kii da nga ko jëlee philosophie. non waa surtout ça parce que critiques yi man dama ni si laa war a basé wu pour rectifier wu. pour euh, forger ma personnalité sama personnalité. Mhm. voilà quoi. exactement dafa am solo. li liñ dafa am solo critique liñ ci mën a liñ ci mën a jàng. Mhm. yow yow léegi lan moo doon sa sa relation ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo doon participer ñaata ngeen woon. Euh, on était quatorze. quatorze régions yëpp. Mhm. lan moo doon sa ay ay relation est-ce que am nga ci ay miss yoo xam ne. yéen a gënoon nekk. ay xarit ci biir compétition ñun ñëpp ñun ñëpp a nekkoon ay xarit ah. ay comme dañ nekkoon comme ay sa premier jour bi ñu ñëwee moom xam nga duñu xamante mais biñ ñu bokkee bi ñu yóbboo suñu chambre après si suba si lañ miinante ñun ñëpp comme ko xamante ay at. ñaata mhm. temps ngeen toog ensemble. Euh, def nañ fa parce que lundi lañ ñëw def nañ fa une semaine presque. mais léegi parce que est-ce parce que est-ce que est-ce que euh, exemple li ngeen li li ngeen compétition yi ngeen def Fatick yi nga def Fatick. Mhm. yooyu. c' est des compétitions yoo xam ne du du du comité bi moom moo ko def. waaw voilà. waaw comité bi la parce que comité Miss Sénégal dañ doon tànn ay miss ci région yi. après doo ko def. après doo a def euh, kii final bi. bu bu national. Mhm, national léegi léegi boo jógee boo jógee fii lan lan la lan nga gañe yow. Euh, am naa ay voyage euh, ay bourse d'études am naa lépp comme li miss di am ah. comme daaw am naa xaalis waaw. bu bëri sax <laughs> loolu moom mënuma ko wax fii nii. gañe am naa xaalis oto waaw am naa oto. non ah, wax nii na leer de. am naa ay loo daal am naa ay gañe naa lu bari daal. gañe nga lu bëri. Mhm. ah yaa ko wax de. yaa ko wax waaw. léegi lan lan nga lan nga lan nga lan nga war a wax lan nga mën a wax sénégalais yi par exemple xale yu jigéen yi nga xam ne parce que Miss. Mhm. non seulement du rafetaay bi mais da ngay mhm. représenter aussi une jeunesse. Mhm. bu surtout bu jigéen ñi lan ngay wax sa sa sa sa moroom yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. maa ngi leen di wax mu nekk moom yow ambassadrice wu <laughs> Sénégal. maa ngi leen di wax que ñu gëm seen bopp. bañ a déglu ay critiques yu négatif même bu ñu ko jëlee côté négatif sax ñu jëm ko kii nii je sais pas comment dire. Mm-hmm. ñu jëm ko euh, mën a rectifier seen bopp daal bañ a déglu nit yi gëm seen bopp jéem a réaliser seen ay rêves. moo gën de ah? moo gën moo gën ñuy ñuy ñuy critiquer. Ah, moo gën ah. ñuy critiquer au Sénégal mënuñ ko bañ critique mais léegi est-ce que est-ce que yow yow rencontré nga ay ay Miss Sénégal yi. fi jaaroon na ko xam nga ke xam nga ci ñenn. Ah, waa xam naa si comme mii su daaw bi Alberta Diatta. Mm-hmm. démb rek ñoo nekkoon man ak moom. Mm-hmm. ah ok yeneen miss yi. non yeneen miss yi. mën nga mën nga tuddal ay miss yoo xam ne ñoo fi nekkoon avant. Euh, Ndeye Assou Sall. waaw. y avait Cathy Chimère Diaw. waaw. Albert Chimère Dakar la wala Miss Sénégal Miss Sénégal la woon. Cathy ah, ah, moom miss la woon daal. <laughs> miss la. <laughs> ndeysaan. ah man non parce que en coow bi coow bi internet bi dafa bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri na critique nee ñëw mhm. organisation bi ñan ñoo nekk ci membre de jury bi euh, man membre de jury bi miinu ma leen mhm. miinoo leen non non miinu ma leen woon xaw ma leen en plus jour compétition bi si lañ ñëw si laa leen gis ay sénégalais lañu waa ay sénégalais waa amoon na ay sénégalais ak ay tubaab waa je pense bien. parce que boo tam waaw loolu il ñu xool aussi critères yi ñi nga xam ne parce que pour man. miss mhm. yi pour ñu mun leen pour ñu mun leen euh, juger. Mhm. il faut ñu xam leen tuuti. xam leen membre du jury dañu war a du temps ak. mu ak uh-huh, rencontré nañ leen avant mhm. si lu privé bañ leen gis rek sur scène. parce que si scène mënuloo fa mënuloo fa juger nit nga mën a xam personnalité nit bi passé ak moom un peu de temps peut-être yendu ak yéen wala deux ou trois jours. loolu am na sax ñëwoon nañ. xool leen. Uh-huh. waxtaan ak ñu waxtaan tout. Mm-hmm. kan mooy deuxième dauphine bi. Euh, première dauphine bi première dauphine Miss Thiès. Miss Thiès. Mm-hmm. ak kan deuxième. deuxième dauphine Miss Dakar. ñu xam waaw loolu la wax mais lu yàlla dogal moom. kenn mënu si dara liñ naan goût et couleur ne se discute pas. loolu moom kenn mënu si dara moom ñii dañuy ànd ñii bañ a ànd. Ah, fi lañ ko fekk. fi lañ ko fekk de ah. <laughs> fi lañ koy bàyyi tamit man man. cest à émission bi du gudd gudd yooyu. Mhm. parce que dama bëggoon sénégalais yi quand ñu gis que ni je trouve euh, tu es une belle femme. Mhm. Euh, léegi am naa am naa ci kii bi ci boîte à gants bi bu ñu gaaree. Mhm. dama am fii kii nu mu tudd euh, démaquillant. lan lañ koy wax. loolu <laughs> la tudd. léegi man su ma la joxee démaquillant dém dé démaquillant. waaw. est-ce que mun nga démaquiller wu sénégalais yi xool la ni nga ni nga mel. sans sans sans sans. non du ma ko def kon sama ñaawaay bi dafay génn. ah mais non non non non non non non attends normalement normalement bu ñu nee miis nag. naturel. ah waaw mais non miis lu mu naturel naturel rafet am na ca nag. Mhm. moo tax ñu naan miis. Mhm. xam nga miis moom. kii bi nu mu tudd wax bi. Mhm. am na solo yooyu yëpp am na solo mais li ëpp solo c' est quand même la beauté. léegi la beauté bon beauté bi mën nañ toujours questionner affaire yi mais normalement. man dama amoon sama sama démaquillant boo xam ne dama ko jënd. non pour jox la ko nga démaquillé pour wan senegal yi que ni yow. <laughs> que quand même. allah. Mm. ah ba ko joxee ñeme naa ko kay. ma dindi ko léegi. wóor na <laughs> waaw wóor na bu baax. waaw ah, bu ñu bu ñu taxawee ma génne démaquillé. ma ma kii ma dindi maquillage wala dañuy def loolu wala. wala nga <laughs> nga kii nga nu mu tudd nga nga génneel ma ay photo yoo xam ne. Mm-hmm. après ma dugal ko ci émission bi. photo mm-hmm. yoo xam ne. démaquillé wuloo waaw ah, maquillé defu dara mhm. tout naturel mhm. nga kii après kon bu émission bi jeexee dinaa la envoyé samay photo naturelle mhm. voilà nga envoyé ko la ko léegi si si si si sur le plan personnel euh, bi nga nekkee Miss ba léegi xam naa ni gars yi ngi lay commencé woon <laughs> bàyyi tooñ non non damay laajte rek xam nga yooyu yëpp gars yi koy bëgg a xam dëgg la Miss Sénégal waaw léegi est-ce que est-ce que yow bëgg nga bëgg nga kañ nga bëgg sëy danga bëgg jàng ba pare doo a sëy wala boo gisee jëkkër léegi sëy pour gars yi seetaan ñu mën a xam. <laughs> non man man personnellement dama bëgg jàng ba am sama liggéey door euh, a. lijjanti la affaire sëy a mhm. ah, kon pour la moment daal ma a gars yi. ñu xaar ñu xaar. <laughs> waaw ah, gars yi. <laughs> Fatima Fatima. Fatima oui Fatima. waaw Fatima nee na nee na dafay dafay jàng ba léegi nga ne terminal nga def. terminal laay def ah, waaw. ok ban mhm. lan nga bëgg a suivre comme étude. Euh, journalisme. Ah, en plus. Mhm. Euh, léegi animatrice télé rek. animatrice télé <laughs> mais non animatrice télé ak ak journalisme bokkul de. bokkul waaw. bokkul bëri na bëri na ay animatrice télé ñi gën a bëri sax. jànguñu ko à dañ ko jàng sur le tas rek mhm, mais est-ce que donc bu moom quand dangay da ngay dem CESTI wala nga dem fenn jàng ko mais il nga def la différence entre animatrice mhm, euh, animatrice télé aussi dafa dafa laaj bi est-ce ñeme nga ñeme nga kii yow dama mel ne ku timide de <laughs> non musuma timide ñeme naa bu baax ah. uh-huh. bëgg nga musique musique euh, waaw yan yan musique nga bëgg ay Wally surtout Wally dama koy déglu lu bëri. Mhm. ban ban ngay déglu. Euh, daf may dal. <laughs> léegi wayal ma ko ma dégg. tey ma nettali leen man li ma dal ci sama digganteeg xale bi ma tal <laughs> te dama ba sama baat neexul moo loo ah, waay. ah mais bi Sénégal doy fecc na mën nga fecc. waaw tuuti rek. ci biir affaire dañ leen di jàng dañ leen di wan yooyu yëpp. waaw. Ah, dañ doon def ay répétition chorégraphe première tableau bi et en tout cas. en tout cas kon kontaan naa bëgguma émission bi gudd. Mhm. c' était tout juste euh, pour présenter gars yi. un uh-huh. peu Miss Sénégal. Mhm. Euh, Fatima John Fatma John. Mhm. Fatma la wala Fatima. Fatma John seen day Fatma John. day Fatma John. yi jàppale nañ la waa Fatick. waaw jàppale nañ bu moom maire euh, Fatick monsieur Matar Ba. Abdou Latif euh, Sokone la dëkk moom. autorité yi mhm. Abdou Latif jàppale yi moom jàpp nañ ci bu baax seetaanuñ moom benn yoon vraiment jàppale nañ ma si côté yëpp. président Macky nag ah moom Fatick la jógee. naa Fatick la jógee kay. Eh. jox na la ci dara ci non moom nag aw ma chance su rencontré ko. waaw doo ci émission man waa Fatick laa maa gagné Miss. waaw ah, ok <laughs> président Macky Sall man la man maay Miss Sénégal Fatick laa dëkk maa gagné Miss bi. waaw <laughs> ah, ah, léegi rek doo mu yónnee la dara. ah waaw loolu tamit dama ko bañ bu ko bu ko mënee def tamit mu def ko. man président la mën na ko da koy def sax xam naa incha donc léegi yow da ngay da ngay dellu ji Fatick après jàngi. waaw après damay ñibbi jàngi. après buñ la soxlaa nga ñëw buñ ma soxlaa ma ñëw waaw. Ah, parce que jàng bi moom pour man. mooy euh, priorité waaw mooy priorité bi mhm. quoi. c' est très mhm. en tout cas kontaan naa. Uh-huh, waa la gën a kontaan. léegi tamit ah, nga góorgóorlu. Mhm. mooy li nga wax yaw yaay Miss Sénégal. maay Miss Sénégal kenn mënu ko dindi kenn ah, dañ la war a dañ la war a encourager jàppale la. Mhm. vraiment nga nekk xale am benn benn rêve ku nekk ak sa rêve. Mhm. am am benn rêve réaliser ko. dañ la war a jàppale encourager la. Mhm. il faut quand même ñu ñu ñu bàyyi trop di di di euh, nit ñi non man je ne suis pas d'accord ma ci ci loolu parce que effectivement ku nekk am nga sa avis. mais soo bu la jaralee ngay dem bay bay bay def ay affaires yoo xam ne je trouve pas ça. loo xam ne lu war la parce que bon moom laa yéen suñu ay ay jigéen ngeen suñu ay rakk ngeen dañ leen war a encourager pour que ëllëg aussi ñeneen ñi nga xam ne dañuy aspirer à se présenter ci Miss Sénégal. Mm-hmm. ñu am ñu am courage parce que bu ñu defee nii. Mm-hmm. kenn dootu ko nangu def kenn dootul ñeme vraiment kenn dootul ñeme def. parce que wala ñu dañ naan way même soo ko gagné nit yi dañ may critiquer surtout ak internet bi. gars mm-hmm. yi des fois aussi lu ndaw rek ñu jël ko amplifier ko. dugg na fi génn fi yal la yàlla yal na la jik amiin ah, amiin vraiment yàlla jàppale. amiin ah, léegi da wax sa dernier mot nga nuyu seen waa kër. wala yaa xam say xarit wala kenn wala sa yaay. Euh, maa ngi nuyu sama yaay surtout. Euh, sama xarit sama waa famille vraiment seetaanuñ ma benn yoon ñu ngi may soutenir di ma jàppale vraiment kontaan naa si yéen daal aw ma seen fay. jërëjëf donc bi ma tour avec bu ndaw rek. <laughs> ak euh, Miss Sénégal parce que effectivement coow li kii na gars yi nañ ko féliciter man dama lay dama lay féliciter yàlla la yàlla dafa cat. Ah. merci et à la prochaine. à la prochaine. waaw ah, bi moo doon tour avec ah. <laughs>